bul fàtte cliquer abonner abonné ak la cloche pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am jërëjëf ah invité ah mu ngi ree rek dafa ma sonal lool <laughs> une semaine la xale bi ñoo na na ma ne ko ci lan mu ni ma xanaa waxtaanu tabaski bi ma ne ko ah waxtaanu tabaski day am mu ne ah ñu ngi xaar de ma ni jey moom daal kenn xamul fooy rëcc ndeysaan waaye bu dul dara sax moom jar na ko walaay ndeysaan boo defee ñu nuyu ko nuyu ñi mu àndal yépp nuyu soxna Astu ak ñi mu àndal wa tabarakallahu ak soxna yu baax yi nekk ci seen wet yëpp mu mel ni tubaarkal la sunu góor yu baax ñëpp a ngi taw waaw ci tariqa tijaan ak ci tariqa murid ak ci yeneen turuq yi ci des yëpp waaw waaw am na ñoo xam ne ay góor yu baax rek la ñu am waaw tariqa bu fi ne góor yu baax nga am waaw la ca xew ca Touba moo xew ca Tiwaaw moo xew Ñaseen moo xew faneen fa tabarakallahu ñi ñu am ñëpp a ngi fi waaw am naa nag sama mbokk mi moom mu may xool bëtu bu ñu fi jógee tey Fadal Mbacke bii waaw lay ndeysaan waaye rek ndeysaan cofeel gu ëpp rek waaw lay ndeysaan waaw e bu ko defee nag dama mbokk bopp bi Haji Saloum Dieng bile ak ñi mu àndal lay ndeysaan mbokkam ma ca al arad al muqaddasa mu ngi téléphoné barki démb ba bi ñu nekkee ca Arafa waaw lay ndeysaan muy yóbbante

وتبارك الله لك كما في بادم جبتي مريو دي نانكي دال لوسي مي وقتان بي دفان باد بومي دك تخاو ما بخم نيكو ولف دي وخي موك نيكو سنو بروم دي سي بن لا ولا ديت ماي باتو سانغ بي kaatim mi léeg-léeg mu def yónnee ma enveloppe ñu bind ci mu ngi jëm ci sang bi léeg-léeg nit jàkkaarloog nit ku mu fonk ni ko sang bi waaw te xaw ma baatu sang bi lan la mu mel ni buté ci wolof bu la ku baax ku ñépp fonk juree rekk dafay dagan ñu ni la sang bi et pourtant baatu sayyid ñewul ci alquran presque wala bu ñëwee itam ñewul ci façon bi ñu koy interpréter ñun wolof yonent bi tudd na ko façon yu bare dama am sama rakku bopp waaw <laughs> mu ngi may reede waaw sama maam Abdou Bile waaw di doomu Serigne Mbaye Njool Fuuta sama xarit la nag bu ma gisee rek day ree ndax daf may dikk grand boobu ah te grand boobu bi dama dul xam ndax dina ma jot wala déet ah dama di ko tooñ noonu fa tabarakallahu xale bu amul morom ah te di ko nuyu bu baax a baax waaw na baatu sang bi dañu wax ni sunu benn ustaaz bu ñuy wax sàmba Diop dafa wax wax bu ma marqué mu wax ni fu waay yegg waay yeggoon na fa te yeggul jara xalaat lool fu waay yegg rek am na ku fa yeggoon te yeggul fi nga yegg fan la fa nga waroon a yegg te yegguloo fa fan la gis nga nit bind gi ko yàlla bind ala surati rahman yegg gu jëkk la mu xool boppam xam ni du rab xool boppam xam ni du garab xol boppam xam ni du doj te ñetti yi lañu ñu composé àdduna bi muy dunde te moom nekkul benn ci ñetti yi kon buñ ko waxee ni ko duñ ko bind ala surati rahman yegg na yegg gu jëkk mu des beneen yegg bi mu mel ni fi mu war a yegg nag sunu boroom li muy jox nit du muy aj ñu di ko séenu rawatina bu dee ci sunu pénc nga xam ni ku aj day bañ ko seenu kaw te sunu boroom li muy yéene nit du lu muy aj pour nit di ko seenu fu muy fàkkal nit la bëgg nit tëdd fa mais bala mu fay mën tëdd nag bete mu nekkee martyr ñun bu ñu tuddee baatu martyr rekk xare la xalaat te gis nga nit bu nekkul martyr ci juddam du yilif famille ba fokk nga nekk martyr ci sa biir juddu pour yilif sa famille boo nekkul martyr ci xam-xam doo nekk sëriñu daara boo nekkul martyr ci diine doo nekk ilimaan ju ñuy roy fokk nga nekk martyr ci ñett yi pour teg la ñetti honneur wala ñetti noblesse sharaf ak sharaf ilmi ak sharaf diini بقاضي مدخة كلا وخورني لجنة الشيخ أحمد تيشاني شريف مي كم يتي شرف يا أمن شرف طيني شرف علمي اك شرف ديني لو ينغو لكو ينجل moo ko doole fan la Sharaf juddoo Sharaf maanaam noblesse mu ngi juddee ci alkarama karama itam sunu boroom ma taxaw rekk xool boppam wax waxin bu nga xam ni bu doon ci ñun wolof dañ naan law la cat sunu borom ma xol boppam rek ni law la cat waxin la tabaraka asmu rabbi jalali wal ikram kon majesté boobu mu daje ci bopp boppam ak noblesse bu sacré boobu te la tibb pour tànq nit pour nit am teraanga pour nit am màggaay bu ñu ko mën a fonke mais teraanga boobu ni ñu fooge nii da ngay juddoo sa kër bàyyi rekk jot ci ndeke baatu teranga bi ay compte la dafa am benn trésor bu yàlla créé ca kaw ñu koy tudde kanzu trésor bi ñetti guichet rek la am benn guichet bi fa la ñuy joxe chèque ñi yàlla terale ci alkaramatul mufarrada deuxième guichet bi fa la ñuy joxe chèque ني التر لك الكرامة المثنى نتيلو جيشبي فلنيو جوخي الشك ني التر لك الكرامة المثلثة كرامة المفردة

du ku juddoo ci famille Barek am chèque chèque bi chegu lan la mooy chegu solaax mën naa chegu mooy baatu diw day baax na commencé ci sa juddu nag ndax ka tax ñu ne diw baax na ba keroog ngay décrocher sa bopp sa mbaaxu bopp مطخ bala ngaa dem bay décrocher sa mbaxu bopp fokk dina am kudul nelaw Seyid Cheikh Ahmed Tijani góor ga ca ruq ba moom ma ko mas a wax ndeysaan booba maa ngi ci tang jëpp di bëgg tukkal àdduna bi ba dem Kaolack saga président de la république Ñepp dof waaw mu yonne ay gendarme pour ñu arrêté si ñëw fekkuñu ma fa ma dem biir Saalum waaw ah. ñëw ci El Hadj kan jox ko kayit gi El Hadj na ma toog tuuti dix minutes ñu del si daal di ñëw nangu kayit gi ma ne ah du ngeen ko arrêté ñu ni duñu juum. bul fàtte cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti doon nga mën koo njëkk a am jërëjëf.